noonu la ñu nuyoo xalifab Cheikh Ibrahima Dior sëriñ Mbaye Amar di nuyu xalifab Cheikh Mouhamadou Misbah sëriñ maam Tawfeex Amar ak mboolem rakkam yépp di leen ziyaare di ñaan sa yàggal leen fi lool ñu yàgg ci seen ginnaaw ànd ak ñoom si liggéey Seexul Xadim bi ginnaaw loolu bokki jullit yi dañoo teew fii tey am ay kàddu yu bëgg leeral ci xew-xew boobu am na mën na ni depuis ci bi nga xamante ni bii Serigne Gana rek génn na wax ci quartier général TFM waxtaane suñu maam Cheikh Ibrahima Dior Amar te mu jël ci ay sources yu leer yooyu ci biir kër gi la ko jëlee muy kër Cheikh Mouhamadul Misbah am ci nag ah, ay gone yooyu dañ ñoo jóg wax ci na wax ju ñaaw ba génn ca loo xamante ni moo waral tey ji suñu jataay tey ñu koy leeralaat ah kooku génnoon nag liñ ci wax mooy déclaration yi def ñetti yoon la génn ñetti yoon yi mu génn yëpp yëg nañ ci ni def na ci ay njuumte yu bari ba tax na ñun suñu génn tey ak suñu wax tey ay leeral a ngi ci ñetti tomb lañ fas yéene tënk suñu waxtaan incha allah tomb bu njëkk bi mooy leeral mooy leeral ki génn ñetti video yi nga xam ne génn na ko mu toll ci vingt cinq minutes douze secondes toj-toj yi nga xamante ni wax na ko ci nga xay ni benn faute bu ci nekk yóbbu na loxo ci gémmiñ ñu fas ko ko yéene leeral ba xamal ko ni maanaam sa wax jooju bari na ci ay njuumte yu mag a mag yu ci nekk yoo xam ni mënoon na ko bañ a dal ñaareelu tomb bi ñu fas yéene ko tontu maanaam ci ay laaj yooyu dañu ko jox te laaj yooyu sax. laaju ko ngir jëmmi suñu borom subhaanahu tabaraka wa taala wante da ko laaj ngir tiiñal as gor ngir tiiñal ab jullit ngir sës ko ci barab ba duutu mën a dellu ginnaaw waaye sama nag dafa yaatal yi mbiram lool yaatalub xam-xamam lool ñu fas ko si yéene indil ay addil la ay yu wér ndax dañu ne ma si jox ay tontu yu leer ak argument daañu ko argumenté incha allah ba ab dars sax lay doon ci moom am njàng lay doon ci moom laataa mu doon nag ay weranteek dàggante ñetteel bi nag mooy leeral ko kan mooy cheikh mouhamadul misbaax mi nga xamante ne bii ca mag ña la lëggéeyal ay wayjuram lëggéeyal sëriñ tubaa cheikh mouhamadul bachir ba am ngërëmam kan mooy jëmm ju sell joo ji nga xam ne lay jéem a ay waxam ba xew-xew yii xew am fekk ko ci walla boog ba eh, njuumte yu bari yii mu def yëpp fekk ko ci kon ma jublu ci njuumte yi nga xam ni juum na ko sëriñ bi yow bi nga génnee ci say vidéo yaa ngi génn ci sa ñetti short yëpp mi ngi nekk 25 minutes yu toftal 12 secondes 25 minutes yu toftal 12 secondes def nga ci 25 fautes ñaar fukki fautes yooyu benn fot bu ci ne yóbbu na loxo ci gimiñ dama jàpp ni doomi kilifa doomi soxna ju toll ni yow bu demee bay dajale presque di waxtaan ak ñoom walla muy wax kàddoom di génn di génn néeg ba mu koy waxee wala sax ci biir néeg bi muy waxee xanaa loo jàkk ñàkk ñàkk maanaam ak njàng war ngaa fexe ba ñaar fukki minute ak juróom moom boo koy wax boo si defee 25 fautes dañu lay wax ni la minute bu nekk am nga benn faute ci doomi soxna joo xam ne ëllëg da ngaa war a jiite ay nit ëllëg da ay nit dañoo war a topp sa ginnaaw nga leen di def loo ñuy def man jàpp naa ne loolu njuumte la loo xam ne loo war a seetaat sa bopp la bi si jëkk mooy sa vidéo bi nga jëkke def dangaa génn ubbee ay saaga ci nit koo xamante ni bii sëñ Tuubaa mooy ab xëyam mooyum gontam am nga métier yow man am naa métier waaye moom daa jël sëñ Tuubaa def ko muy métier nga ubbee ko ay saaga saaga yu ñaaw ci internet bi mënoo koy weddi parce que dañ ko enregistré yow yaa ko def dugal ko si internet bi te saaga xanaa loo gàtt-gàtt war ngaa dégg ni sëñ bi ni wala taqul li ahadin kazabta aw qulta gayra xaqin aw aqtata bul wax nit fen nga bul wax nit juum nga sax wala sax dangaa dangaa juum sëñ bi dafa wax ni bul ko wax nit waxoo dëgg wala fen nga wala li nga wax du noonu sax sëñ bi dani la ko wax na nu la jàngalee noonu nga ko war a waxee nit yow boobu nga ubbee lii lépp nag ci erreur yi nga def la mu ngi toll ci 25 fautes danaa la ko résumer nag daal ci tànn ay tuuti leeral law bi si njëkk mooy da ngaa giñ bi nga bi nga nee gànn waxoo dëgg ba pare da giñ ci yàlla ci ñetti giñ yi gën a foor mooy billaahi wallaahi taalaay te war ngaa xam ne ci charxu risala dalay wax ne wal lil kasi bi mutaamidan lil kasi bi aw shaakan fa huwa aathimun wal xaalifu lil kasi bi aw shaakan fa huwa aathimun ku giñ tay ko ci aw fen wala mu nekk am lënt li ngay giñ nekk lënt leerul nga doog koo giñ yow da ngaa bàkkaar kon yow bàkkaar sax fekk na la sa wax ji bi ci des it da ngaa weddi waxi sëñ Misbaa mi nga xamante ni bii kilifa la mag la mën laa maanaam doomam rek mën laa jur nga wëlbati ko weddi waxam te yow tuut nga ci weddi googu te biir wax wut mooy nga ba ca biir nga dëggalaat waxi sëriñ bi kon muy si ñetteel erreur yoo xam def nga ko weddi commerce bi nga xam ne moom la suñu maam Ibrahima Joor doon def ba sëñ tubaa dimbalee ko ca xettilee ko ca da nga koo weddi te waxi kilifa la yow fekke woo ko ke ko nettalee la mag sa baay la waroo koo woon a weddi demaat ba ca biir nga waxaat ni sëñ Misbaa du ma weddi ay waxam du ko benn waxam laa dul weddi danga da nga ko jëkke weddi boo ko weddul woon lii yëpp du xew bi si desaat mooy dem ko ba si biir nga ni beneen version bu ñu am ci xisab Cheikh Ibrahima joor duñ ko dindi waa lan moo tax Gana joxe version bu jógee ci biir kër gi nga dem di ko dindiwaat loolu ci sa njuum tey la nee nga amuñu problème ak waa kër sëñ Misbaa da nga am problème ak ñun nag parce que sëñ Misbaa dul sa morom mooy këll këllee muy wax nga di ko jéem a dindi amul sa genn kilifa ci ñi nga def ay kilifa ko ci masa taxaw weddi waxi sëñ Misbaa du ci xam-xam du ci at tuumaal nga sëñ Ibra Joor tuuma lu mag nee nga dafa bind ci ay fànn yu bari maa Ibra da ñun liñ xam boo ne bind ci fànn yu bari juum nga juum lu rëy te yaa ngi koy tuutal tuutal bu mag ñaata kilifa ñoo bind ci xam tawxiid ñiy bind ci fiq ñiy bind ci tasawuf ñiy bind sax ci naxu ak naxu ak ak arud ak bayaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii ci wàllu mantiq la ak yeneen yow Cheikh Ibrahima Dior bindut ci lool gisagun benn téeréem ñun bandale gëstu ba léegi fu mu bind ci ci euh, tasawuf wala mu bind ci fiq wala mu bind ci tawxiid nga ni dafa bind ci ay fànn nit mën na laa poser question ni damaa soxla benn charx bu Cheikh Ibrahima Dior boo xam ne da koo saraa ci téere fiqh wal tawhid yi te boobaa yaa ko yóbbi loolu bis des nee nga ba ko doon wutloo mawaahi bu ladun yee mawaahi bu ladun <laughs> maa ngi jégalu lool la ci bu ladun yee dafa man dama koo xamut ladun yee mawaahi bu ladun ya loolu la waaye boo nee mawaahi bu ladun yee ku dem si internet bi tàppe mawaahi bu yee doo gis dara loolu ci téere erreur yi la bi ci des salaatu ala nabi gi ñu defal suñu maam nga xayante ni bii Sëñ Tuubaa ci la ko xetlee suñu maam nga xay ni ñi ngi ciy def ay secret di ci gis ay mbir yu mag ba kenn ku ci nekk ci noonu say taalibe ngi lay woo daal di la ci laajub lim ngir jaar ca ñoom xetli koo ca hmm, yow da nga koo yàq xanaa bañ gi nga bañ salaatu gi laa yaakaar ni moo tax salaatu gi nanguwul sa làmmiñ allahumma salli ala sayyidina muhammadin nga wax mi ngi nii muhammadin nag damaa yaakaar ni ab jullit lu mu ñàkk-ñàkk aw jàng li jëkk jiitu moom ginnaaw lislaam alquran dafa wax dafa digle sama borom digle ni julli leen ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waroon nga koo man te defoo loolu ak yeneen ak yeneen yooyu du xaj ci micro waaye nga xam ni rek sa vingt 25 minutes yaa ngi def cinq faute am nga benn faute ci minute bu nekk loolu mat woon naa bañ a def rëy na lool traité nga ñu nag euh, euh, traité nga nu nun façon traitement bu bu ñaaw boo xam ni ñun yarewuñu loolu nag bu dee wax ju ñaaw ñun xam-xam lañu jiite ci li ñuy def ak bu yar bu mat sëkk xëy na duñ la dugg ak yow ci loolu parce que nit tam doo ko tontu ci ni muy waxee tuumaal nga euh, sëñ Misbaa ndax boo taxawee weddi xisaam bi rek da nga kaa tuumaal ni kon li mu wax saxul muy 25 fautes yooyu duma continuer ak yow di la ko liiral waaye ñi koy déglu ak yow sa bopp da nga yëg ni juum nga ci njuumte yu mag a mag a mag a mag a mag loolu ba ci ni nga nettalee sa gànnaar bi bi nga nee Cheikh Ibrahima joor bi muy dem ci yoon wi ba tële jafe am jafe-jafe giléem gi naar bi daa ñëw yësal ko am lum ko laaj da ngay dafa yëkkati lam ko laaj jox ko ko ci bu njëkk ba loolu nga wax bi mu ko ko joxee mu dem yóbbu ko gànnaar xisam ñaareel bi nga ni bi mu ko ko laajee da ko ne yoruma ko fi waaye bu demee sëñ paate sama maga nga fa dana la ko jox waaw lu ma ñaari ak te njuumte yooyu kenn ku ne xam na ni maam paate moo fay gëléem nga ba mu demee ci sëñ tubaa bis des mooy yow salaat ala nabi gun jox suñu maam ñu ciy jëfandiku nun ñëpp da ci gisi xéewal nga wëlbati ko bëgg koo weddi ba ba wax ci loo xamante ni moo indi coow yi am yépp ci biir euh, internet bi kon loolu mooy erreur yi nga jëkk def moom laa la doon régimeel ci lu gàtt rek dama naa gën a yaatu waaye damay bañ mu xat ma ñëw yow nag ci ñaari laaj ñetti laaj bokk yi nga xam ne da ko koo laaj te jàppoon ni amuñu ci ay réponse laajoo ko li wàcci laahi tabaaraka wa taala laajoo ko ngir mbokk waaye laajoo ko ngir bëgg xam kese waaye da nga laaj ngir tuumaal asgor wala tiiñal ko ba sës ko ci barab ba duutu mën a wattandiku arrière te ni sama borom xam-xamam dafa yaatu ma xikmata may yasha ku ko neex lay jox xikma ma ñaari laaj yooyu nag dana laa ci tontu mais da ngaa wax sëñ Ibra Dior da nga koo da si tuuma yi sax mooy da nga da nga koo juddul 62 te 61 lan gis ñun ñun xattu yaddam lañ yor mbindum loxoom mu ni lañ ceef bokk na ci preuve boobu sax mille euh, sëñ Basi sëñ sëñ Ibrahima Dior bu fekkee dañ ni 84 ans la dund ak 1945 euh, la fi jóge waaw mi ngi juddu 61 jóge fi 45 léegi 45 boo ko génnee ci boo ci dokk yokkee 84 ans da yóbbu ci 61 ji léegi laaj bu njëkk bi nag ci laay ñëw ak yow ma nga déglu ko ma leeral la ko bu wér ndax da nga ñëw ñu see tiiñaal ne ay addi yu wóor nga ci soxla sëñ Ibrahima Dior yaa ko jox 22 ans ni 22 ans naka la ci nit mën a juddoo jàng ci wala boog toog juróom-ñaari doo ko dal jàng jàng ba noppi jàng xam-xam dem commerce perte ci ba calcul ko ba teg 15 ans léegi bu ñu la fekk see ci question boobu dañ la ciy jox lu leer ba sa bopp ubbee ko pare te ñun ànduñoo yow sax ci loolu même bu dee danoo d'accord na yow ci 22 ans yi sëñ Ibrahima joor bu fekkee 22 ans la am toog 7 ans doo ko doo ko dal waaye lan moo tax nga bëgg koo jombale mokkal alxuraan ba mu daataan ci juróom-ñaari atam mooy nit ñu baax nañ koy def Cheikh Ahmad Tidiane Sharif ci septembre la mokkal alquran karim usaamatu usaamata ibnu zaydin bi muy jiite xaret bi nga xamante moom la ko yonte bi sallallahu alayhi wa jiitaloon ni ko demal nga xeexi boobu Ababacar a ngi ci Omar a ngi ci Ousmane a ngi ci Ali ngi ci di ay baayam suñu maanaam yonte bi sallallahu alayhi jël raawe jox ko ko jiital ko ci kanam te boobu mi ngi am 18 ans waaw léegi ki am 18 ans mën a jiite xare ak ki am 18 ans commerce perse yow indiwul ab recette ci commerce bi waaye perte la ci jëlee li tax nga wax maanaam lu mu cuune cuune war naa mën a perte nag yow ñëwul dafa indi bénéfice dafa perte lañ wax dangaa wax ni Serigne Touba 83 84 la bàyyi ko Mbàkke Kajoor wax ni dellu si waatu fi ba 95 wax jooju dindi ko ba mu set nga tegaat ko nee parce que 83 84 ci la jot nag rabbi ashaabaka bil himmati wala tu rabbihim bi dar si faqat man na faa jóge Mbàkke Kajoor dem de waaye da ko war a dindi ndax boo ko dindiwul da nga joteeg ñeneen sax ñoo xam ne ñi ngi màggal ñëw Sëriñ tubaa tey da ngeen koy xañ ndax boo ne 83 84 dellu siwul Mbàkke Kajoor ba 95 waxuma la nun waaye da nga joteeg ñeneen ndax Sëriñ Tuubaa Lat Joor 86 fekk na Sëriñ Tuubaa Mbàkke Kajoor léegi kon xanaa kon Sëriñ Tuubaa 83 84 la fa jóge kon ni ko Lat Joor di fekkee 86 Mbàkke Kajoor benn Sëriñ Tuubaa ñëw na Aadulaay 87 waa Aadulaay kon nañ def ak seen gan googu Sëriñ Tuubaa delluwaat na Aadulaay 92 jaale ji Cheikh Mouhamadou lamin léegi nag euh, déedéet Sëriñ delluwaat na Aadulaay jaale ji ki sancoon Aadulaay waaw Cheikh Mouhamadou la Sëriñ Tuubaa def kon ak date bi nga xam ne 83 84 la jógee Mbàkke yor te dellu fa ba 95 tam ñu wax la Lat Joor 86 wax la Mbàkke wax la Adulaay 87 waxaat la 92 dellu na Adulaay waa léegi yow Cheikh Mouhamadou Lamine Dramé bi mu koy jaale ji Adulaay 92 yow kon dikk gi sëñ Tuubaa dikk sa kër maam sax danga ko bëgg a far ndax yow sa sa sëñ Tuubaa 95 gi nga wax ne moom la ñëw njaar da ñëw ko fa 92 la fa ñëw jàppal lool ndax daa jaale ci aadulaay sëñ Mouhamadou Lamine Daraame jóge fa dem gëti ndonga jóge gëti ndonga laajte yoonu njaar nañu tegtal ko ko mu ànd ak maam Cheikh Anta ak ñëw sëñ Massamba Diop fekke si na ngan ga am na ñu wax ne sëñ Massamba sax 91 la wàcc ci laxasaay ñëw njaarnde 92 jóge njaarnde dem ngëlik xumma moom njaarnde ñoo sédd ñoo séq tali bi jóge ngëlik dem faas Touré gu sëñ Cissé Touré jóge faas Touré gu sëñ Cissé Touré dem mbàkke kajoor ni sama borom mbàkke kajoor la xam mu delluwaat mbàkke kajoor kon 92 ngay jàpp ni la ñëw njaarnde jëlal sa calcul 92 bu fekkee moom la sëñ Touba ñëw njaarnde sëñ Ibra judd 61 1861 boo ko ci 92 mi ngi lay jox fanweeri at ak benn bi jox Maam Ibra Alaaji di ko ñëw njaarnde booba Maam Ibra mi ngi am fanweeri at ak benn fekk na ko mu jàng ba jàng xam-xam bay commerce ba ne ci bi diggum njaayam 92 ba 95 taxriirul aqwaal day wax ni sëñ tubaa mësul deñ di baagante diggante kajoor jolof ak bawal diggante 88 sax moom la lay wax da lay ni la 88 gi mu sañ ci tubaa ak mbàkke diggante boobu ba 95 gi mu war a demee ci géej gi sëñ tubaa mësul deñ di baagante di def tuur ci diggante yooyu mooy kajoor bawal ak jolof ngeen yow sëñ Tuubaa da nga ko parqué rek benn béréb ni génnaatul foofu duggaatu benn yoon léegi 1861 mooy 1892 boobu day fekk sañu Ibra day am benn fekk na muy commerce diggante nag 92 ba 95 gi nga xay ni moom la delluwaat la doon wër sëñ Tuubaa ñëw na fi Mbàkke Kajoor diggante boobu ci la moom mooy fi ko maam doo nga jàppe ci loxoom yóbbu ko sëñ Tuubaa loolu sax mooy deuxième laaj bi ndax premier laaj bi rek mooy Atima Ibra laa doon xamal ni la fanweer ak benn la am fanweer ak benn nag nit moom loo ko xeeb xeeb war ngaa xam ni mën na fee jàng jàng fi liggéey commerce fi perte fi da ngay bàyyi xel ni Maam Ibra kenn néewul dafa indi bénéfice bu bu bu bu xajut ci nopp dañ la dafa perte perte gën a yomb li dee si def ci njaay nag nga xam loolu ñun ay jaaykat lan de sëtu commerçant la ji sëñ Ibrahima mooy suñu maam loolu duñ ko bañ sëñ Tuubaa ko xett li sinon kon duñ am kenn kuy fóon suñu loxo loolu jërul bañ sëñ tubaa kum xeet la sa maam da ko war a damoo sago ko salaatu ala nabi googu man ay nit a ngi may woo ma leen koy jox ñu ci defub lim di ci gis seen bopp te sama bopp laa ko tàmbalee man nag dañooy jàpp ni sëñ Ibra commerce perte fanweer at ak benn bi koy def yow fekk na am ko nga jëlee ca perte ba fa nokkul lu war a yóbbu loxo ci gémmiñ parce que ay nit ñu ko gën a tuut dong ñoo ko doon def te sëñ tubaa da ngay bàyyi xel ne bi muy ñëw njaarnde du jóg ci lu dul ndigal bi muy ñëw njaarnde dafa fekk sama borom jox ko ndigal mu doog mën a ñëw ci Mamour Guma Binta gis ngir set ngir sel ga ca moom ndax suñu Tuubaa du seeti ku setu dëgg dëgg set suñu Mamour Guma nag bu mënee jur doom xanaa doom ji war a dara dara daray mbaax ci moom war a mën a mokkal alxuraan ci fanweeri atam balaa mu am fanweeri at war a mën a jàng xam war a mën a jublu ci liggéey boobu amaguli taalibe di taalibe yi ñaam bi maam ndonga ba muy def loolu maa wér ba muy def loolu amuli taalibe mooy sa laaj bu njëkk ñu ñëw ci deuxième laaj bi mooy da nga ni fan la maam ndonga jàppe ci loxob sëñ Ibra Joor yóbbu ko Mbàkke Kajoor loolu dañ koy nangu muy lu wér maam ndonga du du ab jàmbur magam la ñoo bokk nday ak baay jëkk ko ci sëriñ tuubaa sëñ Touba def ci moom mu mus ko laataa maam maam Ibra di ko mos ku la jëkk reer nag wolof nee na dana la wanu reerin moo tax ba mu ba perte Touba bi di ko wër xamul fu mu jëm boobu joxagul boppam sëñ Touba ku joxu sa bopp sëñ lu ñu la tuumaal jërul weddi maa ibra des na leneen sax mën ngaa dégg leneen loo xamante ni bii moom boo ko déggee jarul weddi boobu joxagul boppam sëñ Tuubaa de bu mu ñëwee ci maam dongam mu pompal koy rango jam jàpp ci loxoom yóbbu ko ci seex seex bu baax bi mooy seexul xadiim fekk ko Mbàkke Kajoor jàppal kon 92 95 la ko maam ndongo yóbbu ci sëñ Tuubaa mu dox digganteem ak njàqare loolu ba jox ko salaatu na bi gi daa delluwaat nag njaxate continuer di commerce xéewal di ko fa ñëwal ba fay bor yee yëpp ba muy fay boree bay jeexal fekk na sëriñ bi dem na 95 romb na mu dem ci tukki bi ba ñëw ca la ko doo ko demee gànnaar fekk ko fa jébbalu ji loolu mooy ñaari laaj kon jàppal 92 95. Euh, ñetteel bi laaj mooy maam ndonga mi nga wax ni bëgg cee wax ni daa jébbalu ñaari yoon ba laaj ñu ci question boo xam ni lu simple la maanaam maam ndonga mooy woon taw maam Gumba Binta moo leen magoon ñoom ñëpp. ak njëbbalam am na version bu sëriñ Misbaa wax suñu kilifa nun nag duñ koo xay ni version buñ dégg weddi ko de yow yaa ñuy toppandoo di wax loolu waaye fekk ne yow da weddi ba pare sëñ maam ma am na version bu mu ci wax sa way jur tey téye nañ ko weddi wuñ ko am na fii jóge xel ñu ma ngay jëm pataar waaw mu ne su ma ko su ma su ma xamee bu nekkee pataar danaa fu mu nekk dinaa ko fekk tey ji jébbalu hmm. moom ndax ba ma ko gisee Mbàkke Kajoor ba léegi hmm. bu ma tëddee mu def ab géej wér ma lii sama suñu may moo ko nettali mu def géej wér ma waaw dama koy fekki pataar jébulu ci moom dem pataar ne ko ne ko ne ko man de mbàkkee damaa bëgg a jébulu te am nañ ma gàllankoor mu ne ko lu doon hmm. mu a boo ko yoree boo ko bàyyee da ngay la waaw mu ne ko luy wér bi ne ko xalaatu allah nabi la ak turi yàlla mu ne ko sëñ Tuubaa ne yàlla bàyyi yonent bi looy def ne ko lap mu ne ko lap hmm. mu ne ko loolu la mooy gàllankoor bi waaye yow bàyyi woo yàlla bàyyi woo yonent loolu mënu laa tey waaw. boo bëggee nag beneen version ci sëñ Ndonga da ngay dem yow seet ci ay xalifaam képp xalifaam wala nga dem ci njabootam nga laaj leen ñoom seeni version beneen boo mën a daaj ji ñaar yi waaye ñun loolu lijjantiwuñ ko parce que nekkul juge bi wara a tax nuy wax juge bi la ko commencé ca maam ndo ci maam Ibra waaye du maam Ndonga kon nga jàpp ni loolu mooy sa ñetti laaj yi bi ci des mooy paataar yow danga ni ni nga nettalee maam Ibra ak njëbbalam ba indi ko gànnaar yow yaa wax ni sa baay la netti lool de mu jëlee ko ci baayam waaye nun li dégg ci sëñ maama muy lu wér nga xëy ne moo ko wax ñu dégg ko sëñ maama moom paataar la wax sëñ maama nu mu ko waxee nag nii la ko waxee paataar jooju euh, la wax ni fa la jébbaloo léegi nag gànnaar gi yow nun moom nga daan dégg ñu koy wax te wëlbatikuwaat nga wax ni sa bàyyi la ko nettali kon ma lijjanti loolu ak la nettali gànnaar ak la nettali paataar ñun ñoo la ko te suñu ko loolu mooy ñetti laaj yi nga xamante ni yow laaj nga ñu ko bis des nag nga nu nun traité nu ay échantillon ay échantillon xam-xam lañ de ndax sëñ Misbaa ko dégg xam ne borom xam-xam la te ku yaru njabootam te ku leen jàngal leen ba jàng jotee la traité nga nu ay gone yu ndaw yu amul xam-xam yu yara def gone yu ndaw yooyu nag ñoo génne vingt cinq fautes ci sa vingt cinq minutes yi nga génn foot bu nekk yóbbu loxo gimiñ leeral la ko tey jii nii nga war a wattandiku nag bañ ndax am na lu bon bon ñu topp sa ginnaaw ah, kon loolu mooy woon liñ la ci tontu ci wàll woowu ci en résumé li ci des nag danan la danan ñetteel bi tomb mooy danan la wax kuy Cheikh Mouhamadul Misbah mi ngay jéem a di nga takk a weddi leeral la tuuti ci moom ba ëllëg nga jëlee ci leçon bi si desit mooy du continuer di waxante yow ngay wax ñu lay tontu ndax ba nga waree jàng jàngoo kon doo wëlbati ko bëgg a jànge ci sunu kaw bu la ko jaralee da ngay ñëw ci kër gi loo bëgg xam nga ñëw ba si noonu laaj nu ko laaj nu ko ngir yàllaa ko bokk ñu xamal law muy sa diine nag muy si wàllu bokk bi loolu la si laa biré la ko waaye nekkunu ci presse bi nag ñun di ci waxanteeg yow nga naan ñu cocc ñu naan la gel amaanaa boo ñu laajul woon question yi sax doon gis wasalaamualeykum wa rahmatullah ma jox sëñ Paate mi mu àggale ci allahuma salli ala sayidina muhammadin salatan taqdi biha dayna ibrahim yaman ya fi minka liya rabbaahu salli ala man ismuhu misbaahu ginnaaw bu ñu santee yàlla suñu boroom subhanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul di ñaanal mu Serigne Mountakha Mbacké xalif général des mourides yàlla yàggal ko fi loolu te may ko wér noonu la ñuy nuyoo sëriñ bay Amar mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Ibrahima Dior di nuyu bu baax di ziare Serigne Maam Tawfeex mi nga xam ni mooy xalifab Serigne Misbaahu ñaan yàlla yàlla sàmm leen te guddal fan di ñëw rek di wax xam naa man sax damaa xaw am kersa ndax ñaar fukki fot ak juróom as gor su génn ci télévision ñëpp di la seetaan nga ni sëtub Cheikh Ibrahima Dior la ñu ni maamam boroom xam-xam la woon nga yëkkati sa kàddu juróom ñaar fukki juróom ñaar fukki minute ak juróom tey laa ko mas a gis te yaakaar naa ñu bëri tey ko mas gis man dama yaakaar ni daal kii dafa jar bokk yëpp dajale ñu xool luñ ko joxus lëf ngir mu noppi ndax am na ñun dañ leen war a fay ñu wax waaye am na ñun dañ leen war a fay ñu noppi ndax gimiñ bu dee bu waxee waxu toj toj noppee ca gën te ngóor si saa su waxee rek loxo dem gimiñ ndax dama seetlu ni li sëriñ bi wax léegi premier discours am ay saaga la génn tifaar saaga wax saaga saaga saaga yow sa image naturelle bi nga moom mooy sa première image yi nga jëkk a génn deuxième image vidéo bi soo nga def audio nga def wax jooju mooy say wax troisième bi moomoo ca dara dañ laa jël wutal la fa tey teg la ci xottil la mbubb parce que xam naa sa yére amoo bu moomu solal la ko wutal la kaala tegal la ko takkal lay lonet bind discours di la ko jox discours bi da nga ko doon ijji ñëpp xam nañ da nga ko doon ijji parce que jàngoo xamoo dara mais li gën a doy waar mooy sa gàcceeg tey gii bokk ko ñetti paa yi ne ci sa ginnaaw di la bindal di la jox xam nañ leen bu baax dañu leen dul tudd ñooñu ay ennemi Cheikh Mouhamadul Misbah lañu moom rek lañ bañ xam nañ lépp dañoo ànd ak yar ak teggi nag ni pat parce que ñoom keroog Cheikh Mouhamadul Misbah làqoo Serigne Mouhamadul Muntaqa ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadul Basir ak njabootu Serigne tubaa ñu ñëw taxawe ko jébbal ko boromam ci bisu altine fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi nga xam ni ci la fi ku tedd ki Seexu Xadim bàyyi ko sëriñ Misbaa nuróole ak sëriñ bi lépp nuróole ak moom fukki fan ak juróom-ñett ya nuróole ak moom altine ja ba ci at ma benn fanub ajjuma la sëriñ Misbaa benn fanub ajjuma at euh, at moom nga xam ni yàlla def koo dimbali ci njëlbeenam la Seex Musaa wax ci Seex Ibrahima Fall ni mas nay xibaar ak njëbbuloom bay wax ni yàlla mi ko moom moo ko ni bamba moo la moom raasi ko jox ko say pexe sëriñ mis ci tuut tànkam la def listixaar di laaj boromam sa ban jaam nga gërëm bu nga xam ne bu ma gërëmee ma am ngërëmul yàlla suñu borom wan ko seex Mouhamadul Misbaax ca Malakut seex Mouhamadul Bachir ca Malakut moom sëriñ Misbaax suñu borom wan ko seex Mouhamadul Bachir ca Malakut joxoñ ko ko ni ko jëm jee bu la gërëmee gërëm naa la. keroog 1800 année 50 yi ci année 50 yi bi Serigne Misbaahu di dem di jox boppam Serigne Bassirou Mbacké nam ko gise woon ca kaw noonu la ko gisewaat fii ci mulk mu tarbiye ko tarxiye ko tasfiye ko marale ko ak boroomam jox ko ciru boppam bu nga xam ni ñun am na lu dooy sëkk ci wax da di boo amee maam ju baax mu def lu baax te Serigne Touba mi may ñëpp may ko xettali ko ci ay jafe-jafeem il faut ñu doon ay gor di fàttaliku loolu ndax ku fàttelu la fal booy folleeku dalay bett mais loolu am sëriñ Misbaahu mbii lii ko sëriñ Basiru jox muy toolam bu yaatu bii ñun doy nañu sëkk aw laaj bu dul woon leneen moom wax na ni sëriñ Misbaahu nee na sëriñ Basiru Mbàkke moo ko jox wér du maxuus minallahi bi wasitati rasulillah sallallahu alayhi wasallam te nee na sëriñ Basiru Mbàkke bi mu koy jox da ko ni sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasul moo ma ko jox te Serigne Touba yontu yàlla Muhammad moo ko jox waa léegi yow nga génn sa premier discours comme ni ma ko waxee léegi doon ay saaga sa deuxième discours comme ni ma ko waxee troisième discours bi dañ laa dañ laa dénk ay wax rek nga di ko wax keroog ñu dencee Cheikh Mouhamadul Misbah léegi xam nañ ay mag yu nga xam dañoo taxaw temb ci ni turu Cheikh Mouhamadul Misbah yi du jóg te fay ko lu mu leen jaral ñoom ci fay turu Cheikh Mouhamadul Misbah jaral na lu ko ëpp ñun ci yëkkati turam bi kalimatu ndax kàddu dëgg la day jëm kaw rek di jëm kanam rek insha allahu rabbi léegi nag ñooñu dafa am lu mu leen di wax ñu nekk sa ginnaaw di bind di la jox parce que xam naa la jàngoo li xamoo ko li nga yàq lii lépp kenn tegulu ko bokkal gàcce gi ak paay ni sa ginnaaw la ma la waxoon mooy dellu siwaat sa benn baay du génn di weddi waxe sëriñ Misbaaw ndax ñoom kilifa lañ ko defoon respecté ko dund ak moom dundi wu rafet ba mu jóge fi kon kay yow yaa jóg ne amoo kilifa parce que xam nañ la amoo kilifa ñun njabootu Cheikh Mouhamadul Misbah koo ci jël am na kilifa am na ku muy siyaar ci biir kër Sëñ Tuubaa siyaar bu leer di yóbbu addiya am ñun suñu addiya université Cheikhul Khadim dem na bokku ñëw ku toog fii di commentaire te joxe woon dara ci université bi ñun suñu addiya dem na bu yàgg demaat ñun ci taalibe la ñu Cheikh Mouhamadul Misbah nampal ak am kilifa ci la ñuy jaar ba ba ñuy dem barzax insha allahu rabbi ay murit lañu ñun ñi nga xam ne dañuy weddi karaamay Serigne tubaa di daj yi mayam ci biir néeg bu ñu génnee ci télévision bu ñu waxee ni Cheikh Ibrahima joor dafa amee woon ay bor murit yëpp Serigne Touba xettali ko murit yëpp yëkkati seen loxo seen xol sedd nga ñëw naan du dëgg ndax lan ndax dangaa ci sa biir dangaa weddi Serigne bi ñu xam na ne ci loolu lan la yar yaruñu la ci ak taalibe ñi nga xam ne dañoo njëgg mi jàpp na leen ban tàmbalee weddi sëriñ bi eh, bu nee Serigne Touba def na karaama sàngam ñu ne ñi ko wax wérut tey confirmé nga ci télévision bi ni li Gana Messere wax ci Serigne Touba du dëgg dem nga ba ci biir nga xam ni yaa ngi nekkatu en sécurité nga génn ne publier ci Facebook bi. parce que xam nañ sa li ci sa biir lépp sa première image saaga Gana rek loolu mooy sa image naturelle li ma ciy dolli nag la ko waxaat mooy ñu ne ci sa ginnaaw nañ xam ni ñoom mu zabzabina bayna zalik la ilaha ulaay wala ilaha ulaay ñoom bu ñu dajee ñu ni ñu seen baay moonu lii moonu laa te buñ génnee di yàq la Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu waxoon ka ko doon diir mbagg ak di ko xas dafa la jeeg Cheikh Omar di ko tagg yaakaaroo Cheikh Omar bëgg koo tagg Cheikh Omar Cheikh Omar ni ko madhu madhu wala mun fi makaanin waahidin min waahidin li waahidin ajabaani <laughs> tagg nit ki boo jàkkaarloog moom boo demee xas ko ci même place bi même kenn nit ki. mais loolu doy na sa kiim kan boo jàkkaarloo moom tagg ko te boo ko wanee ginnaaw xas ko waaye nag ñu xam ni yent yàlla Muhammad am na lu mu waxoon di ko naafeq yi di kereel bëgg koo di ko jéem a assassiné suñu borom daf ko ni wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala yi ku dee ci joom bu ko jullee bul taxaw ci bàmmeelam aussi kon ñi lay conseillé ci suuf nañ xam ni ñoom nañ xaar loolu ñun nag ñun ay gaynde lan de ñun gaynde gu mar dëgmal déeg bi ni dina naan mbott yu sab mënu koo tee naan te ñun ngërëmul Cheikh Mouhamadul baa lañu mar mënuñu koo ñàkk ba ci suñ dernier toq deret jaral nañu ko il faut que ñu xam ni beneen bi ci des mooy il faut ñu xam ni moom xale bi di wax échantillon bi mu wane bi bi mu traité ñun moom échantillon saaga la exposé moom ci kër gi mbokk ñun échantillon xam-xam la exposé toujours incha allah rabbi ñu dina xamal nag beneen affaire mooy am na lu gën ci yow ndax sa taalib bi yaakaar sa kër bàyyi ak sa kër maam ñi ngi découragé ci yow parce que c'est par la première fois ngay saaga ay nit ak di leen xas di ko dugal ci ay groupe bi taalibe te loolu jëmul kër bàyyi ko ñun jàmm rek lañ la yéene aw yiw rek lañ la yéene waaye juru jàmbur nag du moroom kenn du ko këll ñun respect la ñu am ci sa kilifa fonk nañ ko lool bëgg nañ ko ngir yàlla ak deret ju yàlla boole sa maam it fonk nañ ko bëgg nañ ko waaye na nga bàyyi xel ci ni Cheikh Ibrahima Dior Serigne Bassirou Ndiarandé mooy taawam Serigne Bassirou Ndiarandé magee na Serigne May fukki ak ñaar bu fekkente ne 1892 la judd di ñenn ñi wax magee na ko fukki ak ñaar bu dee 1895 ji ñeneen ñi wax magee na ko juróom-ñeenti at it noonu la mage taawu Serigne May sëriñ Misbah it noonu la magee sa waajur yow li mu ko magee sax moom ëpp na 23 ans yooyu wala boog mat na 23 ans au moins 23 ans magi na ko kon kooku waxam wax bu jógee ci moom amul wax bu ko mën a tee gën a wér ci biir kër Cheikh Ibrahima Dior te njaay moom di leen déranger parce que lan dégg ngeen dégg ngeen am kersa ci sëñ ndongo moo yóbbu moo def intervention bi yéen si man wax nañ ma ko ci biir néeg ni ma lu sëñ Misbah wax wér na comme ni mais li ñu ciy déranger mooy maam ndongo moo yóbbu maam maam Ibra loolu moo ñuy déranger mais na leen déranger yéen mais ñun dëgg gi du ñu déranger beneen bi ci des tamit mooy ku mu neex ku mu naqari li am mooy sëñ Ibra Joor da doon jaay ca njaxate yor fa boutique loolu mooy di am bu dul woon sëñ Tubaa kon amaana cër bi ñu am sëñ Tubaa duñ ko am ndax sëñ Tubaa moo ko li moo ko defal salaatu bi te loolu mag ñi xam nañ ko am na lenn ci ay njabootam mi nga xam ne seede nañ ko beneen bi mooy li nga wax ni la majorité la majeure parti de Kër Cheikh Ibrahima Dior c'est faux du dëgg loolu loolu wérul loolu amul de la majeure partie de Kër Cheikh Ibrahima Dior sëriñ Mbaye doomu Cheikh Ibrahima Dior la sëriñ Afe ñaari rakam ñoo ñëw fii li ci ndigalu Serigne Afe lañ fi ñëwee saafonteeg sëriñ bi sant ko gërëm ko ci li muy liggéeyal maamam continuer dem ci sëñ gànn masawu ko ci saaga yi ko xale bi saaga sëriñ sëriñ Balla doomu Seydou Ibrahima Dior la benn doom lañ xamal ci moom bu góor muy sëñ Moustapha di xalifaam ñëw na fii wu sëriñ bi ci ci mel noonu confirmé ko ni ko du ma weddi sëriñ si baaxu sëñ Moustapha doomu sëriñ seex la démb génn na dégg ngeen li mu wax ci presse bi waaye juram sëriñ seex jot na sëriñ bi téléphone xamal ko ni ko tooñoo kenn da ngay liggéey lislaam te sa waajur woo def ñoo àndoon ñu àndin wu rafet duñ ko weddi mukk lu mu wax gëm nañ ko sëñ Baara mi nga xam ne mooy xalifa maam Gumba Binte tey njaboot yi ñëpp mais ñëw na fii ba ci kër gi mu wax ni Cheikh Mouhamadul Misbaax wóofoon na njaboot gi ba ñu jóge fi mësu leen a waxal mësu fee wax benn wax bu nga xam ne bu ñuy sikki sàkkal daal ni te ñun de duñ ko sikki sàkkal xale bu koy sikki sàkkal nag yaa kon lii da xam ne yow la conseil Abdoul Ahad Amar sëñ Abdoul bàyyi la ci yow ñëw na ba fii mu jàkkaarloog sëñ bi ni ko liñ li ñu am keroog ci quartier général gànna defal na ko du jooju teraanga bu ñu doon màggal 50 ans ko am daal ni bu leen doon woo presse sax ñun ba neexee woonoo ñun ñoo xam ne suñuy kilifa lañ doon leen déplacé kon yéen li ngeen wax taxawul du lu leer du du tege fenn réye jàpp ak bëgg daraja ak di diir mbagg waa kër Sëñ Tuubaa yi ñun waa kër Sëñ ay taalibe la ñuy doon ci ñoom parce que ku fàtte la la fal da ngay folleeku ñun suñ maam da doon commerce di jaay ca njaxate am ay jafe-jafe Sëñ Tuubaa génne ko ci seexal ko jox ko mbooloo Seex mhm. Mahamadul Misbah dafa rañaan fii dem fekk Sëriñ Basiru Mbàkke mu liggéeyal ko ba mu gërëm ko ñun duñ fàtte démb Sëñ Tuubaa li ñu fi indi mooy xettali ko moo fi indi suñu maam moo nu fi bàyyi ñun ñii ay taalibe la ñuy woy doon bañu faatu bokku ñëw ku weddi Serigne Touba ci suuf te boo génnee ci public bi di jéem a wane ni da ngay maslaa ndax la ndax bañ nga taalibe yi yaakaar sa kër bàyyi rëcc mbaa nga bañ sa bakkan dañ xott nen wasalaamaaleykum wa rahmatullah des na ñun nag daanika li ñuy jiital tuuti rek lay taay du gudd dañoo bëgg xam ne tuuti rek ni Cheikh Ibrahima Dior dimension bi ko Cheikh Mouhamadul Misbah jàngalee dafa dund ci amaakinan muxtalifa maanaam Cheikh Ibrahima Dior dund na niñ ko waxee njaarde Cheikh Ibrahima joor dund na gànnaar Cheikh Ibrahima Dior am na ñu wax ne dund na Gàmbi ba am fa njaboot Cheikh Ibrahima joor nee na dund na diggante njaarnde ak jaarim ak waaw Cheikh Ibrahima joor tamit commerce na njaxate ba perte noonu mu amee nag la amee ci biir këram tamit ay ëtt yu wuute Cheikh Mouhamadul Bachir di ab taawam bàyyi nga demaat fekk ci njabootu Alaaji Moodu Roq Alaaji Alaaji Moodu Roqee fekkaat ci njabootu Baay Mbay ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi ñu tudd nañ ñu ko jéggal ku mel noonu ci dimension boo lay taasub jàppee ak a taqayud mooy nga tënku rek ci sa waajur lim la nettali yaakaar naa loolu njuumte dafay am ndax sa maam mën naa séq ak kenn ca gànnaar loo xam ne si ni yow xamoo ko woon sama mën naa si ak kenn ci njaar nde loo xam ne xamu ko woon preuve bi ci am léegi mooy karawaan bi demoon gànnaar bi ñu demee ca baaba di ñoom wax nañ ko ay maxtuutaat yoo xam ne si seq nañ ko ak yenn ci magi dar maa ngi koy nañ ko ñenn ci ak njaboot seexul xaddiim ndax loolu bis munta am mu tenk yow li nga jàpp ne rek maanaam sa baay moo ko wax mooy liy dëgg Cheikh Ibrahima Joon dimension boobu bii moo waraloon Cheikh Mouhamadou Misbah génn ci moom genn xasida goo xam ne si ni ki dafa am kilifa gu ko martial wax ni di ko jooytu di ko di ko di ko jooytu bakati samaau alayka ya chamsa alhuda wa kadaka ardu llahi yabki walbuxuuru bukaauha aswaatun is aaba lahun awaaw lillahi min hawlin yashibu ruusa taani bi ajira bi ujrati ayshiha al abaau wa musibatun law annaha nasalat jabalin la dakka walaan wa huwa habbaaw na jooy asamaan dafa jooy see ibrahima joor bi mu fi jógee waaye tamit suuf jooy ko jiiri ji jooy ko géej gi sax la ca yéeme ba muy jooy tilli yi ñoo ko doon aw nee na ngir musiba moo xam ne si dal na ci àddina bi musiba moo xam ne si bu wàccoon ci wu da ngay fekk mu nekk ak pënd nee na ka tiit sax da nga koy tiit da koy nuróole tiitaay nga yow man xiyaam dafay daal di bijjaaw kon kooku mooy Cheikh Ibrahima Dior mi nga xam moom la ñu Sëriñ Misbah andil version bi ngeen andi nag dafa dàqu wut ak version bi kër gi am daf koo ta'yid li ñuy wax ta'yid mooy dëgëral ndax ñaata nit moo am fii problème ci wàllum commerce def listixaara asunni gi nga xam ne si moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle wala nga dem ci kilifa gu la gën a ragal yàlla wax ak moom su ko defee mu listixaaral la kon dafa am maana zaahir ak maana baatin waaye jafe-jafe yi noonu ngeen war a nangoo tamit ni comme que listixaara am na ci rek kon ay jafe-jafe amoon na ci mooy bor yi ak commerce bi waaye noonu tamit ngeen di war a nangoo tamit ni mën naa dem ci magam ji ko gën a jege mu yóbbu ko Seexul Xadiim léegi nag Seex Muhammadul baax mii ñu lay wax nag moom li ngay wax du lu ñuy bind teg ko fi bañ jiil gi nga xam ne si ñooy ñëw ci maanaam génération bii ñëw man ci sukkandiku mën nañ cee jafandu waaye dana la ci wax ndax boroom xam-xam das koy takk ci ay mbir laa yazaalu al abd fi fusxatin min amrihi maa lam yaqul baytan aw chiaran nit ñi mën nañ laay wax ne boo noppee ñun la boroom xam-xam nga waaye ngir ñu takk ko dëgg-dëgg nag da ngay wax benn bayit wala nga wax benn way ci noonu la ñuy jàppee ni kii boroom xam-xam la Cheikh Mouhamadou Misbah na ci wàllam loolu tax nga tey ñu indi ko ci géew bi ndax moom bi fi waajuram jógee 1873 bu ma juumut day njëkk a takk laxasaayu way waajuram wan ni ñàkk na ndax moom li mu jàppee ñàkk mooy ñàkk waajuram bu tedd bi ala innani abki ala faqdi sayidi faq faqduhu faqrun wa ijaaduhu nasru waaye ba mu waxee loolu nga xam ne xasida gi irtijaal la fa def sëñ taala irtijaal irtijaal boo ko xamul mooy jori ko baab bi xam naa duñ ko mën a xam ci olof mooy nga jékki-jékki rek mu dikkal nga wax ko waajoo ko waaye noonu mu waxee loolu way ko ci ba wax ni ko yaa ayyuha daa'i ila al ahdi innana na al ahdi ma na fanim anta xaadiru yow mi nga xam ne si yaa ñu doon woo ci kóllëre kóllëre gi mooy li suñ paate wax noonu ñu ngi ciy woo suñ mbokki baay yooyu ñu dellu si ci mooy kóllëre gi nga xam ni moom la suñ Basiir doon woote ndax Seex Ibrahima Joor dafa nettali suñ bis baa wax ni famille boo dem ka ca daax doxu mbokk ndax caar fetal bu ci ëpptu fan ba ñëpp di ko gis dana ci ëpp alal léegi nag moom sëñ Misbaa woo àdduna bépp ni leen yaa sëñ Basiiru dafa daan woote al ahd kóllëre kon nañ dellu si ci kóllëre boobu siyaar hmm. bi mu ko mujjee siyaara sëñ Paate mii ngay woon ci jataay bi njaboot ñu bëri nga fa woon bokk na ci li mu wax ak Seex Basiiru bi mu nekkee ci xabru bi ci bàmmeel bi hmm. maa kunna li nanqada al ahda allazi daara baynana wa baynaka ila yawm al xiyaamati du ñu deñ mukk di sàmm kóllëre gi nga xam moo dox suñu diggante ba yawm al ci la ko waxee tamit ay bayit wan ni ko maay sa xalifa danaa taxawu njaboot gi binaauka mahfuuzun wa tayfuka maasilu wa sawtuka masmuhun wa in anta saadiru kon kooku mooy Cheikh Mouhamadou Misbah ci baayam kooku mooy ni mu ko mel ba tax na Sëriñ Xaadim Awa Ba di doomi leeri Cheikh Mouhamadou Lamine ñëw fekk ko muy jooy yooy mu daal di koy aw ñu nekk ci xasir yi xam na li may bëgg a wax ñi xam arab ayaa ayyuhal baaki lizil faqri wan nasri fada anka haasa fal quburu suduuru nan ci jël boobu rek waaw waaye nim fil qabri fan nuuru saatiu li ahlika fal misbaahu tamma lahu nasu ni ko yow mi nga xam ne ngay wax ni dangaa ñàkk ndax sa waajuru fi jóge bàyyi loolu ndax bàyyi na la fi ku fi jóge bàyyi ku mel ni yow kon mën ngaa dem nelaw yi fal misbaahu tamma lahu nasru sëñ misbaax ndimbal li mat na ci moom noonu mu ko defee defeek Cheikh Mouhamadou Bachir ci aw melokaan mën nañ ci indi yu bari waaye dañuy tënk mm-hmm. noonu la ko defee sëriñ may mi nga xam ne seeni rakk la ci Cheikh Mouhamadou Bachir ndax way na ko xasida gu rafet ida ma taqaafu lfaqra falzam jiwaarahu tajib tajid magnaman yakfiika an fii walbayli ida ma taqaafu lfaqra falzam jiwaarahu tajid magnaman yakfiika an durri walbayli nee na boo ragalee ak ñàkk jërul sax ngay agsi ci moom demal la ci ñu dëkkandoo la ngay daal di nekk ci ba axniyaay ñu am ñu koom egg ci biir mu ni ko la yusni ma ayaa malji al aytaami yaa sarwatal wara wa yaa munqiza al muxtaaji yaa maahiya al jahli la yusni alayka al faadiluuna li annahum ra'aw juuduka taami yasubu ala al wabli wa yusbihu man yasku amaamaka faqarahu ganiyan wala yasku al qayaata min al xulli ba xasida ga jeex nee na ko yow mi nga xam ne si yaay wéerukaayu jirim bi yow mi nga xam ne si yaay ko nit ñi nee na maanaam ci biir loolu nee na ko nee na ko nit ñi dana la tagg nag dana la tagg ndax kuy ñëw ci yow bu ñàkkee balaa agsi ci yow lay daal di nekk ku riche loolu xam nga kon xoolu borom xam-xam moo ko mën a seede ci jëmm jooju kon mm-hmm. Cheikh Mahamadou Misbah wax na loo xam ne si ni naa ni kenn ku ko mos a wax ci jamono jooju amul ci wàllu woowu waaye noonu itamit la ko séqoon ak bàyyam Cheikh Ibnu al Arabi Amar Ibnu al Arabi kooku sëñ Misbah nee na fatan maajidun maazala akbara hammihi fakakka asirin aw maawunata gaarimin nee na jëmm ju tedd a ngi noonu ak maajidun mazaala akbaru hammihi fa kakka asirin aw maa maawunata xaarimin jëmm ju tedd ngoog yoo xam ni yitteem ji gënoon a am solo ci àddina mooy fekk ku ni prisonnier ci ñaar ñu tëj la ci kaso mu génn la ci wala sa bakkan ñu prisonnier la ci ba mënoo jaamu yàlla mu génn la ci wala mu fekk ko ba mu peñ ba mënut a lekk dara mu dimbali ko kon kooku Cheikh Mouhamed Pis Ba wax na ko loolu waaye noonu mu yëkkatee xalimaam way ñooñu ma tënk ko ci foofu la amee ñeneen ñoo xam ne dañoo yëkkati seen i xalima ñëw ziyaar daal di agsi ci moom indi nag si yéen wax joo xam ne wuute naa wax yi euh, jëmm ji wax ndax am na koo xam dani 91 la ko wayoon law alima annaasu maa fi njaarnde min qiyamin jaau mashatan wa rukbaanan bila sa ami fa ji wa zurhu tanal nuuran wa maarifatan niamal muzaaru fa lam tuxsa wa lam tulami nee nit ñi buñ xamoon li nekk njaar njaarnde ci ay xéewal nee na ñii dañuy dugg ay avion ñëw ñii dugg ay sareet ñëw ñii dox seen tànk ñëw mu ne la ñëwal nag nga siyaat ko da nga fa jële ñaar nuuran wa maarifatan da nga fa jële leerug yàlla da fa jëng ab xam yàlla maarifatu billah mu ni jammat ulumul fata ibnul basiri amar jarit tajit xidaman sarwaka fi maanaam doomi sëñ basiru jooju nee na xam-xam ba dafa bari lool nee na ñëwal nga xool ko rek danga gis lu upp sam nopp waaye ci biir nag moom waxaale na ba tontu wax ji mu ni masnadu masnadu aqwaalihi alquranu wa sunanu yahdi xuyaaral xusaaral jahla bil kalimi nee na sanat bi mu daan jëfandikoo alquran la ak sunna ci la gindee ñëpp ci baatam boobu waaye noonu tamit la ko suñ saal amar jële way ko tamit wax ni ko anfaqta maalaka lil islaahi ya baadi bi qaala wal qawlu min maahi wa mahmuudi kii wax lii baayam la mooy imaamu jéemul tey nee na ko da ngaa financé sa alal yëpp ngir defar islaahu zaati bayn waaye la ma ca neex nag dañ cey teg bi qaala wal xawlu min maahi wa mahmuud maanaam wax ji day jóge ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwaat na faneen ni ko yaa aarafa al qawmi in jaau bi tajdidi maa qad banaahu lana al ajdaadu yaa haadi xuzni wa qutni ila al mawruudi fi waadi wa fi sawaxila min qurbin wa abaadi nee na ñun buñ dajaloo ñun ber man ko yëpp ñëw yow yaay ki ci gën a xam kon jël ma nga yóbbu ma ca rootuwaay ba ca la mujj sa xase gën a aati ubaayahu nuurallahi misbaaha fi sirri wal jahri duna ray bi miftaha devantu xasaan genn xasida ko yaa xellu yaa aqu yaa misbaahu yaa jaar yaa aliman kulla ma naha waa xam naa xasida yi dafa bëri mun ñoo tënk yëpp andi ko waaye maxtaar ke bi da ju neex dañu yuhaddisu an ilmin saxihin wa yartawi li saamiihi azbul furaati al azam sami ne si misbaahu too teeg waxtaan ci xam-xam bu wér waaye kii ñëw di naan si nee na dafay naan nee na xam-xam boo xam ne si ne maanaam dalay màndal ndoxum sam-sam waaw loolu la wax Cheikh Mahamadou Misbah kon nag léegi loolu mooy li nga xam ne si tënk nañ ko ci indil la ci lu bëri nag xaliilun min kafiirin laa la indi laa indi ci wàllu woowu léegi Cheikh Ibrahima Dior mii si alxaqiqi yi mooy mi siñ Misbah jàngale mooy Cheikh Ibrahima Dior ataqi yi mu ragal yàlla mi Cheikh Ibrahima Dior anaqi yi mu set mi Cheikh Ibrahima Dior a mu sàmm mi Cheikh Ibrahima a asunni yi mu dund sunna ma Cheikh Ibrahima Dior al murid saadix moo nekk noonu bu ñu fi copier Cheikh Ibrahima Dior dañu ko andi Cheikh Ibrahima Dior mu yor ab barhut di ko jëfandikoo te barhut nan gëstukat yi nan dem bind ko ci internet bi ñu xool ko mooy xaaru jahannama am ñeneen ñi ni nangam ak nangam subhanallah loolu nu koy askan la Cheikh Ibrahima Dior waaye Cheikh Ibrahima Dior moo xam ni kon moomu maanaam mu yor gawsu gawsu ñoom ñaar rawaay la la ci ñeen ñi am parce que lu ma lu ma kenn ñenn ñi ab këll la boo xam ne si dafay ànd ak ay secret day xëcc aw nit ñii ni kël la boo xam ne da koy joxañ fii joxañ ko fee di ñuy ñëw subhaanallah ah lii si misbaa wute nag li mu jàngale Seydou Ibrahima Dior asunni lañ xam ñun mi nga xam ne si si misbaa neen toog na ci péncum jaar ndem am ab taalibe bi koy ñu attaaya ba war ga war a suukar taalibe amul suukar mu ne ko damaa bëgg suukar si manqué na mu ne ko bul teggi baraar bi ne gëndikul bi mu ko waxee loolu ñu toog tuuti am ku jóge ca àll ba ñëw ni ko dama doon jaar jëm pekkees wàcceel la suukar si ñuy wax tëls mu ne xaaka saa yakun kooku mooy ijaab bi ne ci kër gi loolu la ñuy dund wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu